asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum sama réew um. man Waly Balago Seck maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la masawu waaye tamit di jaale ñi nga xamante ni seen doom seeni mag seen askan génn nañu àdduna ci lii di ñaan yàlla xaaral àjjana te yéexee ñu gars yi maa ngi wax parce que li may def ni gënaluma muy vidéo jox naa cër sénégalais jox cër boo xamante ni su ma sañoon sama wax du nekk vidéo ah, waaye nag da xam ni new ma ci dëkk ba te maa ngi koy naqarlu maa ngi bokk naqar bi ak yéen maa ngi bokk metit bi ak yéen maa ngi bokk tiis bi ak yéen lii àdduna yëpp la metti ku ne xam ne senegal baaxoo lii kenn xamewu leen lii donc ñu ngi ñaan yàlla jàmm dellusi ci nu mu gën a gaawee ñu ngi ñaan yàlla jàmm dellusi ci nu mu gën a gaawee man yàlla dafa dogal jeunesse bi sama xarit lañu te vraiment li ñuy daj ñi metti na lool metti na lool man Sénégal rek laa am sama askan samay xarit sama wàggu sama yaay samay doom ñëpp a ngi Sénégal yàlla xam na ni gëj naa nelaw yàlla xam na ni gëj naa nelaw ku ma xool xam ni gëj naa nelaw màcc na ba ci kanam yàlla ñu ngi naan yàlla teg ko nu mu gën a gaay waaye nag ngir yàlla war suul yi force de l'ordre yi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla war suul yi nañ yërëm ndaw ñi nañ yërëm ndaw ñi ñi jiite nañ yërëm ndaw ñi ñi jiitu nañ yërëm ndaw ñi ndax ndaw kat njabootu kanaara la boo ko jiitalee da ko yërëm yàlla na yàlla sàmm ñëpp yàlla na jàmm dellu siwaat ci réew mi ci nu mu gën a gaawee la ci des nag bu ma ñëwee jàmm salaam dinañ def na mu waree mottali ko na mu waree bokk na xaari bi ak yéen jërë ngeen jëf wa salaam